yéen ñi suivre seen chaîne bii di MTTV ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm eh, xam naadi di ñëw eh, ñaan bi nga xam ni indi woon nañu fi ay njariñam muy karaafiilu waxoon it yoon yu bari yu nga xam ni dinañ ko ci jëfandikoo ak yi muy àndal ci ay saari alquran ñaan boobu nag tey moom lañu leen bëgg indil pour mbokk yi nga xam ne xamuñu ko karaafilu nag dafa am nas bu nga xam ni moom la wàccee bu ko defee bi nga xam ne dafay ànd ak aayaat yi kooku dañu ko ci dugal mu gudd waaye kii ngeen jàkkaar lool ci écran bi kii mooy ñaanu karaafiilu euh, bu ko defee boo ko xoolee bismillahi rahmani rahim allahumma inni as'aluka wala nga ni inna nas'aluka euh, bi xurmati karaafiilu wa kahfiilu sulaymana wa rajilu muusa وسعديل زكريا ومهيل إبراهيم ومهميل ذا الكفل ويوسل القدر ويفيل يوسف وأن يتفيل يوشع ومترد فيل جبريل ومهيل ميكائيل ونوبيائيل إسرافيل ومرفيل عزرائيل وإسماعيل إدريس وريشهم فرجيل اللهم يا متليا يا صالح علي بن أبي طالب ويا متطخفى عثمان يا ملهوتا يا سعيوت الحسن يا ملياتوس عيسى يا كعبوتوس أيوب يا مستوتيا مستكية داوود يا مستلون يا قرقرتنون يا فقار يا تا يا ستوى يا طالوت يا مستطلع يا مستلفيع يا رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم آمين بوكو ديفي كي موي نيانو كرافيلو كي نيغا خني خمو xam bu ko defee yow mi dajeeg vidéo bi boo xoolee ci vidéo yi nga xam ne def nañu ko ci biir chaîne bi di MTTV dina gis foo xam ni ña nga fay wax njëriñu karaafiilu leeral nañ fa njëriñ yi nga xam ne am na ko ak yi muy àndal ci ay saari alquran ak yoon yu bari yiñ koy utiliser su ko defee loolu lañ leen doon baaxee ci seen vidéo bi ñu leen jox rendez ci beneen vidéo di ñaan mbokk yi abonné gul ñu abonné te bës cloche notification bi ndax ñu mën di jot bépp vidéo bu nga xam ni dugal nañ ko fi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.